xëy suuf si booru mbirum tëfuur bu laari saay di suuf si yinu loo yinu si bur ñoo ñu ko dang saay xat xaasa faxraal min xin xasra bal si min jaxra banafturaay akaram marab asraab xutb laylan xurbi maan baraay laylan xurbi maan baraay laylan xurbi maan baraay laylan xurbi maan baraay من بحث تحري مديم المجري في الأنبياء سر الأنين مع الأنين فوق الأنين الأصفياء ما عبد الجلال عبد الجمال الأبرياء خد خادمه يسوى يوم واختار مساوي النخاي وزاد فيهم وبانهم وسنان بهد التخاي خرقاب الليلة خرصب الليلة قد فاقفنا من سلبقاي خرجاني لأهل خيري وبابدي أهل سخاي حصل كمالا فخر جالا جاسل مجالا لانتماعي نال جلالا نال جمالا حنين يا علي ريح يا علي حسن نزاي نحمى العزيم نوى كريم نوى المخيم نوى كاس الخلوي ما القرار مقت القرار بلا نزاي مقت القرار بلا نزاي بن الديور ما خوري بشروا لي كل ساي لوم تداخي بعد نجاحي عند صباح وفي المساي صلاة الشفاح بمدح السفاح تأتي وبطمان تساي عليه السلام ربنا جل ففاق كل من خاي عليه السلام ولا نفخم ولا تنسى الشاي ولا تخيف باب التاريخ أخير وسوق قلور لاي الوزير سيس البشير ذا الخدر مدن خلاي على الضياء أخل حياي خير لاي من سلبقاي لسلحراي على الصحابة زوي الإجابة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة راس الراي نحمر رجال لهم مجال نلوطان وطناي نلوانا لا نلوانا لا نلوانا لا وطناي راس الجميع يوم الخشوع يوم الناي أرباب خيرين أرباب الدين بالبخير أمتناي كل شجاع لوت بام لوت بام غرباي نحمل قمات نمر ومات نقرمات بالاقتفاي بين الفوت هما جفوت بين فين سانسراي تنحوني خيري أو دي بشني خير ما تراي فالفوري نبقى عمري محلف دري بان تراي نخالوش wala yamilu liman yasal liman yasul man jaraay ya salaam ya salaam ya salaam ya mutawali ya xarawali ajib dongay ya xarawali ajib dongay ya xarawali ajib dongay ya xarawali جبتها صلى وسلم على المكلم ودور يا سمسل غاي عمر رسول باب سؤال للنيل سولي حماراي سنت وعما وسسانا وسكن خاما وسكن راما وسناي يا سزرادة يا سنفادة خلصادة لبنتناي زدنا اهتداء زدنا اهتداء خلني احتداء زن احتداء زني احتداء بلا ناي ساسا إسرائيل بلا جزاي تم شايفة فراي يا سلموني كل بلاد ودلوني ودلوني فوق الأرضاي حبيب الدادا كل رانا يا أسوانا بلا كراي حبيب مرورا خير خرورا وبرزورا عبد مسرورة لكل راي مسرور خلالي واحمد غلالي بالعاملاني والمدراي صدر لساني نور جنان سفهماني وسط براي زمزم صدري وقلم مرا فلتك في جورا المنراي فلتك في جورا فلتك في جورا المنراي عن خزيالي من الضلال وبالحلال خلي شراي خني تابا خذ الكتابة واقبل متابا يا سسراي يا خير ربي خير نور ربي تبت خلبي بعد التداعي سلم سلم على المتمم وكل يوم سفر انتهاي زوب خير لي أن الله أنا آه، أنا أنا من أنا أنا أكون شايخا لقومي وانا كون خادما في دومي سن بصرا كان ورم لك ndax kii xam-xam yu xam-xam yu nu murid bépp la maîtrise nit ku tedd ku baax bi nit ku valeur ngi nii nit ku am dignité ngi nii ku baax ku xam njariñul yoonu murid yëpp suñu xol ñun ñu toog ñëpp dañ koy bëgg ci suñu biir xol la nekk yalla na yàlla guddal sa fan. te weral sa cieur amin cër. amiin barka khasaidi ay cieur bismillah mu ngi nonu jere jeuf Serigne Ndiakassa sa nene ci a ci dess ay ayca ñu daal di doxal nak daal di dégluwaat sunu baay Bouchra Samb mu daal di ñu dello ci euh, ay yonu geegi papa ay ci doxalal. waaw ah, Bouchra xam nga fi nga toll woon ba legi ya ngi won ci Serigne Touba ak euh, touba bi ci yonu geegi waaw ma ngi toll won ci. ci touba bi ne borom dar may nañ la ñaar fi ko tok ñent sa mag ji ñëw fekk sunu wuy sunu wala sunu ndaw yi fekki ko détachement bi ñu yebal ma nga ma Louga waaye dinañ leen reprier ñu dellu si ba Louga ngumba ñu taaxeerlu fa ñaar fukki waxtu ak ñeent waaye boo fekk na sëñ Tuubaa waaj na ba jekk ca àjjuma ji di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar di le 9 août vendredi 1895 sëriñ Tuubaa nee na ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikk Mbàkke Bari fekk ma fa boo demee néeg ba nga xam ni fala ko doon joxe ndigalal boo xëyee boo julee fajar am nga ndigal ci sa borom ak ci man mii nga xam ni man ngay liggéeyali ci boo julee fajar bul delluwaat ci sa kër gii sëñ bi yonent bi ni sëñ tubaa ni wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi l ali wa man walaahu lahoo hijaaban maanian min darar suma lahum si xaala laa taxsal xarar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tata wërale ma tata mooy loolu ñu wax forteresse tata nee na mooma ni tata naala la ñag naa la wërale naa tata naa la luy takk ba jubla fay dara du la mën a dara su ma lahum siqaala laa tax sin xarar ma doxal bu ragal ku la lor sëñ tubaa nee na mbër mu yàlla téyel ci mi kaayam ginnaaw du laal suuf zimaami bi ay dil jundi daaru mahila daa zawil jahli wa tadlili aw na min al alam xasida gi ñu wax asbunallaahu wa nihmal wakiil la sëñ tubaa jëkka taalif xasida yooyu nag ab diwaan la war naa mat juróom-ñett fukki at ak nangam juróom-ñett fukki xasida ak nangam yoo xam ni loolu leen tëggee hasbunallahu wa ni'mal wakiil waaye ga ca tàmbalee ci xamitu man yaxsimuni yaxsimuni min a darar moom la taalif keroog ci ajjuma joojee waaj ba jekk euh, jëmale mbiram yépp jant boobee ci tàggoo bég lool nag bég lool sigéere lool boo ko xoolee rek xam ni sëñ bi bég na ndax mi ngi bëgg a léegi mu wan ni léegi mu wane ni moo man ñi mu moo man ñi ñi ko topp moo man ñi ko toppul mm-hmm. moo man ku jëkk moo man ko mujj mm. léegi mu wane ko ci digganteem ak tubaab yi nga xam ne ñoo tëj ñëpp man ñëpp bég lool ànd ak guddi gi nee na tur woowu di xasbunallaahu wa ni'mal wakiil moom la fanaanee liggéey ànd ak guddi gi ak buróo ji di nekk borom daaru mooti ba fajar bi sëñ tubaab jullisee ci jàkka ji fekk waaj na ba jekk bi mu sëlmalee rek la ne ana Thierno ñu ne ko yëg seegul waaye sëñ bi mayeetul ni ñi jàmm te moom xarfu laa kenn du ko ko tontu déedéet léeg-léeg mu ne Thierno yegg si na ñu ni Thiel waaye mayeetul ni ana Thierno ndax yegg si na ba yàgg borom daal ni jaleñ sonn lool xiif lool mar lool gëmmentu lool ndax borom daaru bi muy jógee Louga di ñëw ndar di ñëw Mbàkke Baari toppatul yoonu jéeri gi yoon yi bureau ji rek la topp ak bidiw yi ndax ku xam astronaute la ku xam bidiw la ngir yàkkamteeg délai bi ñu ko jox rek ni mu xate rek ngir bëgg mu informe magam ji ci ne ko tubaab yaa ngi ñëw jàpp si la bi borom daaru dikkee nee na fala falamaa daw na tuhu wa balaxtu baax fa faxaata ani bi ma jubee tàmbali ma tàmbalee nettali rek sëñ tubaa ne da koo dog ni ko ceerno dara mutumaa nettali ceerno mu ne ko mbàkke mu ko ana mel ni ku jàq nii mu ne ko mbàkke jàq jot na ndawi borom ndar yaa ngi ñëw te nee nañ buñ mënee ñëw buñ ñëwee da nga mën a ñëw ñëw mënoo ñëw ñu dagg sa bopp yóbbu wa maa ala rasul ilal balaax ceerno ndaw la lu mat ndaw du yokk du wàññi sëñ tubaa ne ko ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko ndawi borom ndar yooyu ndawi yàlla leen fi jiitu seydina jibril ngoogi di fi bàyyi ko dem leen génne yére yi sëñ tubaa bi ne wa saadafa xuróojohu xuróojo qaayidil jeysi min nahwi luga fatalaq yaa ida jeewal xasiyat zalika al yowm sëñ bi fekk na boobu moom sañatul dellu ci kër gi waaye waaj na ba jekk mi ngi sol ay xaftaan ak jàllaabi yu sutaate comme noonu sëñ Saliou Mbacké daan solo jël ay kaala laxas ko ca ndigg la ba ca dënn ba yeew ko ay kaala muuru ba tuut di feeñ ci xar kanam bi muy gëmm ak xool ne nañ ma takkal sama fas wi ñu takkal ko fas tudd awnullaahi sëñ loolu la ñuy wax alfaalu mooy arfaan sëñ Tuubaa ku bëggoon loolu la bi muy dem awnullaahi la war bi muy dikk rilwaanullaahi la war ndimbalal yàlla la war ngërëmal yàlla la war bi mu dellu see ñu daal di koy takkal aw mor wu tudd wéru wét aw mol la wu jébb doobu ñeenti tànk yépp dafa jóbbu ak jébi ñu andil ko ba ci buntu jàkka ji Serigne Touba nee na bi ñu ma téyelee dëggalu fas wi ma yéeg ci kaw fas wi ci la gouvernement bi yàlla bépp war ànd ak man rafiqi kitaabullahi wal Mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hina daru hina dooru mi ci kaw fas wi ci buntu jàkka ji donc yépp ngi ko wër nee naa la mbooleem mag yi yoon wi ñoom ñëpp dañoo repliwaat bakkibaar yi ngir di fekke bis bu mémorable bi nga xam ni ñoom ku yàlla doo rasulullaahi doo sëñ Tuubaa jàpp xamoo ni xamoo lii ci mujj jàpp nga ni rek fële lépp doxee tabi géej ñu di ko xeej di ko xool avec un muet désespoir un muet désespoir sëñ Tuubaa yéeg ci kaw fas wi nu taxaw tiim ko muy gëmm ak a xool léeg-léeg mu ni inni lam xam siddiqan wala axafu aduwan ragaluma sama noon yi may bëgg a dayeel wéttali koo ma sama taalibe yi وخنا على كل زمامي بأيدي الجندي دارو مهيرة دا زوي جهلي وتدليل عونا من الألم إلى نصرنا قد ساره مقيولهم وصار منهم وقاف الإله منه ومالو إلى السلام سنبي بقى في السنة سيانتي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر واي إذا عزمت فتوكل على الله وقتنا لغني لامبلين تاتونيلين سوندلين بخم فني تولو سنتو با تي كاو فاسوي دوغي وركو mu ne waaw li may laaj li may bëgg a lu ngeen ci xam ane lii ma sóobu lu ngeen ci xam te sëñ bi bu waxee généraliser ku mu joxoñul tudd la doo tontu ñu ne tekk ba caag bu ne ana Ahmadou sëñ Tuubaa bu dee Ahmadou tegu ci wenn tur sëñ Mandumbe lay wax bu dee Seex tegu ci wenn tur sëñ Gaawaan lay wax mu ne ana Ahmadou sëñ Mandumbe fekk na boobu mel na ni baloo bu gone ëpp ba ci di bëgg a daa daal di xaacu rek dama ab xer wëndeeloog moom ni ko mbàkke na badar dekki nañ dee ba jeex mbàkke na badar dekki nan dee ba jeex foofu nag dinaa fi benn parenthèse seytaane lu bari doole la gis nga seytaane joti na àjjana te mën naa trahir ab yonent seytaane joti na àjjana fa la maam Adama génne ko fa seytaane manal na yonent yi dégg nga sunu borom wax ci suurtu Yuusufa فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في سجن بضع سنين كون seytaane تكو يومبول سيرن توبا موني كو خاص ku xas من احمد بامبو man نينا Bamba من fayu نخنا لا ku لا في برب ديف na la xon nga xam ko def ko bam ne sama jëm ji daal di wax ni Mbacke Diouf mu ne ko Mbacke mu ne ko man addu seytaane ak adduna mënaluñ ma dara sëñ Bamba ko wax ndax xam nga lutax mu ne ko Mbacke buñ ko xamone jël mu ne ko ba yéen yàlla di bind fi sama kanam la dañ leen bindé fi sama kanam motax tax mënaluñ ma dara sëñ tuba ko wax waaye bo démé ci la bind ni abatullah salasa alfa abin qabla irhash adam awa xam ki yag na fi mom ak saytaane mom ak adduna mom khadim rasul mi ci kaw fas wi dong ngay wër ko mune ahmadu lo xam sëñ mënu ba yuxu mbacke dama rat dëkki nañ déba jeex wone lo xer mu ne ko ahmadu mu ne ko mbacke mu ne ko wéral sa xer bi té koy noni nga wax rek lay démé da ngeen a xale dee ba jeex ndax ñi fi sama kanam ay xer mënul mënut ñom dara wéeral xar bi te taxaw si déglu ma ana seex sëñ gaawaa ni ko maa ngi nii mu ne ko loo xam mu ne ko mbàkke man ba ma la xamee ba tey xaw ma dara ma ne tubaab yi boo leen joxoñoon ñu tàkk nga jëri leen ñu dib dóom naaw ba jeex du dolli ci li ma la gëm dara boo leen joxoñ bu ñu la joxoñoon nga tàkk ñu jëri leen nga dib dóom it dooñ ci gëm gi ma la gëm dara mu ne ko akasa seex daane ana Ibra Fall sëriñ Modou Kane bàyyi Murtala mu arrix bu mag ba nga xam ne moo nu toq ci waxtaane borom Touba di alim di aarif di fóore nee na booba Seex Ibra Faal la nga fa sëñ Tuubaa ni ko Ibra Faal loo xam nee na Seex Ibra Faal daal di tegale ñaari loxo yi ak ko ca bopp ba daal di téen ni ko ah, sëñ Bamba bett nga ma sëñ Bamba bett nga ma damaa defoo ne bi may fal ci nguuru yàlla gi dama may doolee ba ma yëg ko sa bu xew a tax sëñ Bamba da ngay am sa bis bi yéen ko sob donkal dem bàyyi ma te ngaa bàyyi ma dikk ak li ma am ceeru sarak yi dikk ak ni mu toll sëñ ma nubbe dikk ak ni mu toll Issa dikk ak ni mu toll keneen dikk ak ni mu toll sëñ Bamba da nga yéenu sa bis bi dem moom. sëñ Touba daal di ko ni sëñ Bamba bàyyi ma naan géej gi gaal gii du am fu mu yar yóbbu la wala tubaab yi ma soppi leen ay golo ñuy jàpp sa jaam bi am bi Ibra Fall na ko. mu ne ko Ibra Fall bàyyil géej gi ni ko yàlla bindee te bàyyi tubaab yi ci ni leen yàlla bindee te bàyyi ma ñoom te taxaw déglu ma daal di ana Abdourahman muy seex Ahmadou seex Abdourahman Lo. mu daal di wuyu mu ne ko Abdourahman loo xam mu ne ko Mbakke laajal sa borom li ngay def mu wax la ko nga def ko te nga lax nu nun nu ñuy def nu def ni doo nun séqunoo yow di la digal ak a tere yow laajal sa borom li mu la digal nga def ko te nun ñii nga ngay digal ak a dinu tere nga ñuy def mu ne ko ak sa Abdourahman irjiu wala zimu taatallaahi inni awdahtukum man maa awdahtu shay'an wa asala fihi maa yusuuni ñu ko waaw góor Abdourahman toog leen te muñ dana yag dana metti waaye damay dellu suba liggéey ñëpp danañ añ moo tax tey jii kenn ku nek defe nga ni sëñ Tuubaa yoolu demaloon ci géej ji liggey bi mom kep la fofé fa la sëñ touba waxé ne yu bashiruhu zanni lazi qaadani ila duaai fa bashir man ataaloo lee nax baa nax baa mooy ay yëkkat booba yëg na ni ñoom ñëpp ñu ngi yëkkat di jooy ñoom ñëpp a ngi jooy ndax xamuñu lii góom bi day way dëtt wala day way deret sëñ Tuubaa yor ci loxoom bi loxo alquran képp كيب لا يبلو كتاب به مسكت مستخنيا به غريبا وعن المصيبات والكبا به زال غمي هنا امسكته هدى سأودي به سهد نفسي وإيه بصعبا نانا كتاب القرآن مي به مسكت تلا جابرك مستمسكا به دويلوكو تيكو يرمى اي ارم يرمى اي ديفانس واي القران لا يور واي مستخنن به ما دويلوكو نانا وعن المصيبات والكعبة واي مورونا سما انتي ميسيل ييغا خامني alxuraan a may fegal musiba yi ak balaa yi bii saana xam ni moo dindi sama jar na bàkk Seexul Xadim de fii sëriñ Moussa toll doy looy yàlla jaanoog noonu yàlla yor lu kaamilu alxuraanu karim dong ñu yor kanu yor karabaas jar na bàkk Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimal Mustafa ba tey ci ba tey ci yoonu géej gi rek acca bismillah ndaxam ci waa jikko yoneen la làmboo ndax ab waay jikko yoneen la làmboo del dox li ñëw muy gën a jege ba fii ma ne fula li nga ne lem yeeg boroomam friraasi waaju na li ma ca kaw te diis na ca biir boroomam furi raasini jant bu dem ba njaloor tey léerali yépp gox di kenul boroomam furi raasini ko mu jugaadu geesoo day romb dërëga jëm ca mbirum boroomam furi joo xam ne di lox badrin di ànd ak ñoom tey deyaaleeg boroomam furaasin waa joo xam ne fu mu deew wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ bi xutbu bay raas yi moroomam du gis du li mel ci ji jamonoy boroomam gisee bu gaay da baawoon te xanu yi nuy jibi du ci